wax daal mooy dañ jëm ci màggal ga xel mu dal ak xol bu dal à partir de maintenant nag commencé woon nañu si liggéey ga lañ ci tàmbali ba CLD bi taxawee ba léegi dégg ngeen sous préfet ak préfet ànd nañ ci ci liggéey balay ba bés bii xanaa dafa fekk ne à partir d'aujourd'hui tey moom ah dootuñu dañuy mën a gën a baral tànk yi lépp lu def tam ñu gën a taxaw ba nga xam ne bés bu ñu ci àggee vingt 28 ndax màggal gi la le 28 lañ ko lañ ko jàpp. incha allah dina fekk lépp yam lépp lu ñu waroon def daal ñun ñi ñu xam ne dëgg yàlla taxaw nañu def nañ ko pour mu am taar beeg la fa war a am kaaraange geeg euh, yombal beeg dem beeg dikk beeg taxawaay bi ci war a am ñun fekk ñun am nañ taxawaay boobu. loolu daal laa bëggoon a biral euh, di ko wax mbokk yi di wax sëriñ bi mu yokk ñu ñaan ba yéene ñu fi yéene yépp gis ngeen ko yàlla yàlla mottali ko ndax. bës bi jar na ko tolluwaayu bës bi euh, jaamu yàlla la sax ñoom xëñ na waaw loolu dina ci baax. bisu al isra wal maraaj di bisu màggalu kazu rajab bisu jullit yëpp la bisu humanité la ndax humanité ak l'islam la sunu borom teral te bis boobu la joxe l'islam gi nga xam ne mooy mooy tex ak nit ñi àdduna ak alaxira sallallahu alayhi wa sallam ci yërmandeem mu sàkku ci borom ba mu woyefal ko. mu wax ca njëlbeen nga mu doonoon juróom fukki julli nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil mi ñuy fàttaliku moo ko daan nettalil boppam moo daan jàngaleel lislaam julli di jàngale ponki lislaam waaye daf daan nettali sax julli ni mu doone woon juróom fukk ba ni ko sunu borom wàññee waaye di ko dugalaat nag ci biir yi li ñu tudde rawaati bi nga xam ne mën nga koo jëfandikoo ba la soboowaatee ci sa coobare waaye ku yem ci juróom yi itam sunu borom dana la defal euh, tuyaaba ja nga xam ne moom la tegtal woon ci juróom julli ya nag ñu baaxoo def bu jublu see bi daf daan soññee ci ñu jàng alquranul karim ndax ku ne xam na ñaanal ku fi bàyyi ko ni mu toll ak njariñ danam toll borom xam-xam bi dañ koy misaal ci mel ne nii ñuy yónnee ay koppar ci jamono ji booy def rek mu di ko jot booy def rek ci saa sama di ko jot am na sax ci ci ci ci loo xam ne mën nañu wax ne asar la ñu di ko nettali koo xam ne dafa mas a romb ci ay barab fekk ñuy xëccoo xëccoo bu metti mu fekk itam koo xam ne dafa taxaw fee jàppi loxoom ne ci yàlla bokku ci mu gis keneen koo xam ne dafa mel ne ku bëgg li wala fi wax maare ma ëbb loolu Cheikh Ahmad Rifaay mu daal di yàlla defal ko kashfu mooy kashfu suñu borom mën na ko defal jaam bi mu toog a ki nit di gis loo xam ne ñoom duñu ko gis loolu nag ñun sufyanke yi noo ko gëm noo koy wax nee na suñu borom wan ko mu gis mu laaj leen waaw yéen lu xew ñu ne ko kii taxaw jàppu njàmburam dafa am ñu nekk ca àdduna di ko ñaanal mu doy lool lool ñee di xëccoo nag dafa am jaay yàlla bu fi jaar sànni leen jàng sóoratul ixlaas sarax leen ko moom lañuy xëccoo nee mu daal di waaw kii toog bëgg moom ba mel ne ko maare ñu ne ko kooka dafa dafa caa fëkk dara maanaam bu ñu doon misaal wenn xaraf dupp néeg ba ca kaw nga xam ne matul sax ak waaw moom la ci fëkk moo tax bu mbég mbëg moomee loolu moo tax kon ñaanal ko fi bàyyi ko am solo Cheikh Mamadou Fadil daan soññee ci loolu kon Kazu Rajab gi bu ñëwee sëriñ bi di soññee ñu jàng alquran def ko addi yi sallallahu alayhi wa sallam ne moom la alquran wax ci wàccoon ci moom waaye def ko Cheikhuna al Khadim mi nga xam ne mooy liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te léppam doon alquran waaye defe ko nag Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moom itam léppam alxuraan la woon ndax gis nañ ni mu fonke woon jàng alxuraan bindal sëriñ bi kaamil yi du jeex waaye daan teral borom daara yi daan leen daan leen daan leen dimbali ba ren bokk na ci waajtaay wi sëtam bu ñu wax abul baraka ñëpp xam ko moom itam ci alxuraan mu taxawal ci musaabaxa maanaam maanaam euh, concours boo xam ne dañ ciy jàng alxuraanul karim ku ca raw ñu wutal ko ay neexal te loolu daf ko bëgg ci maamam ja ñu sëriñ Mamor nga xam ne moom sunu kilifa la doonoon ko daan taxaw taxawaay bu rafet ci kër sëriñ Fallou ak ci diine ji yàlla dogal moo daan toppatoo mba njàngum alxuraan moom yi ndax fi mu ne xam nañ ne daara yëpp tàmbali nañ di jàng yoo xam ne lim bi kenn mënta xam nu mu toll daan ko moom itam ñu dugg fàttali ko di ko ci ñaanal waaye bi mu nu laqoo itam sëriñ bi dénk liggéey boobu Cheikh Mahamadul Xabbaan moom itam liggéey boobu ba tey mi ngi koy wéyal ni mu koy wéyale ci daari alxuraan yi kon képp koo xam ne jàng nga ci ci màggal gi alxuraan nu lim bi mën a toll ñu si ñu fexe ba Cheikh Mouhamadul Xabbaan yëg ko kon daal ñu ngi sant di gërëm di bañ a guddal di ñaan sunu borom may nu nu teewe ko ci jàmm ak salaam te sëriñ bi nee na bu ñu ñëw nañ fas liñ bëgg te xam ne sunu borom borom yërmande la te nangul na Cheikhuna al Xadim nangul na Cheikh Mouhamadul Fadil kon fële ku yitte ju fa nit indi ak lu mu mën doon nañ xam ne lu néew ci borom bi subhaanahu wa taala la ci mu faj ko kon lu fa waaye indi yàlla ko yàlla faj kon buy ñëw lépp luñ bëgg nañ ko faj ñaan ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te fekk ko at yu bari lool te yàlla fayal ñu Cheikh Mahamadul Fadil fayal ñu Cheikh Mahamadul Fadil te fayal ñu euh, sëriñam ba di Cheikhul Xadim radiallahu anhu waaye nag may ñu ñu topp sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ñu indil xéwatul islaam wasalaamualeykum wa